Yes. muy Serigne Bachir Abdoul Karim moom dafa moom dafa def jaasi bi dafa def maam gannaaw Cheikh Souhaïbou fii dafa xamoo alquran jàngee xam-xam fii Cheikh Habib Mbacké rahimahullah wala yaamuma loolu dinaa ne kon dafa dee si gën a rek moom nag defe naa ne jël xam ne wala guddal ci xam ne ndax fii mooy li ko xamal na jotaay yi ci gëstu ci bëgg xam-xamam ci tasaare ci sonn ci lislaam ci dëkk bi ak feneen ku ko xam ku ne lu rek ku ko xam yoon yàlla ku ko xam li nga xam ne moom la ko ay waajur si maam bàyyi woon ak nit ñi ci di ko dundal yàlla ak yàlla fay ko dundal ak xam te sutural والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الكتب وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قولي بالذي تعود bokk tànn ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di leen doxal ci بسم الله المبين لله Likita ta mai yobe sai shafi muhtar kun ya lantarki makuyar rubutu. Yi kusa da bin yana yin ɗari su yau na da ta kuma da bin yana yada ga gida da su da Idan kuma ne ne ne ya zama su ba da ta tafiya da ya waaye yéen ñu jiital ci nuyoo bi sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mi nga xam ni moom la la teg ci dama ko gëj a sëriñ Cheikh yi wax dëgg yàlla waaye di ñaan it mbooleem njaboot bi ko encadré di ñaan mbooleem mbokk tale bi ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy day defal la ay bi sos jotaay bi mel ni jotaay bi jotaayu moo wax ni am na ñeenti mbir yu war a tax jotaay bi yaar ñeenti mbir yu war a tax jotaay bi yaar muy jëm ni Serigne Souhaïbou ci bopp di doomi Serigne Touba cër bi ko suñu borom séddoo mu séddoo ko ci mën nañu ni mooy jëmmi diine ci ku dégg diine waaye cër bi mu sëdd woon ci yoonu diine suñu borom sëdde ko ko ni mooy jëmmi yoon bi ci ku xam li yoon bi di takk mu doon jëmm joo xam ne suñu borom ko sëdde woon li doon ab cëram ci diine doon ab cëram ci yoon bi mooy yar jàng yar ak jàngale ñooy diine ñooy yoon lépp lu baax li ñuy wax ci diine baa ñu di wax ci yoon yoon bii ñaar yooyu loolu ma doon ak ci di am bi nga xam ne dina bépp ci am bu ñu amutoon benn pëj bu ñu sukkandiku bu dul ne jëlee solution ak loolu yi ma doon liggéey bi mu daal liggéey ci diine di ko yoon wi buñ sukkandiku woon ci sukkandiku woon ci dara lu dul loolu ngir taxawal jataay yi jataay xam-xam yi mu jafe waaye ñaareelu li tax mu jar ko ñu war a taxawal jataay bii tey mooy jataayu xam-xam ci penc nii biir kër bii dafa am garab ak démb boo xam ne dañoo wax ne loolu loolu man maa ngi may loolu dugg na sëñ bi ci boppam sax mais jàngale boo xam ni dañu doon defar ay téere ci wetu jàngkaay bi ci jàngkaay bi mu xam ne ni dëmb bii fi la Serigne Mbour Moustapha ak Serigne Fallou dalee alxuraan dal ca tegi mooy fàttaliku loolu boobu yi ñuy lijjanti ay téere ba àgg ci téere bi ñuy wax usul tasawuf moom moom taalif te te taalife ko ci mbindi Sëriñ Tuubaa yi mu mu jox ñu ci kenn ku ne benn ba mu ci jotee kenn ku ne benn seet na ci mbooloo mi ne am na ñoo xam ne dañ ko bëgg a yor di ko laaj askay mu ñaan foofu ba rek ngeen yor ko di ko xoolal askay dama bëgg ngeen jàng ko jéem a jëfee ci nekk ma bu ñu toll dara bu dul li fi ñaari kilifa yooyu dana jàng alxuraan dafay teg ñu béréb bi bérébu xam-xam la ba tax na mu yell na ñu fiy taxawal jotaay bi ñetteel ba ci yi dafa am yeneen garab yu nekk ñu jëmmal ko ñu wax ne borom garab moom yi foofu yi la ko sëriñ bi yeggee jox ko ndigal mu beru ngir jàng ak ngir jàngale ak yàlla te ku ne xam ne ni koy beru muy maam Thierno ak cere moo nga tam ci diine ak cere ci yoon ji bu ñu sukkandiku bu dul boobu yi ni moom dañ ko yeewee fii mu dem loolu ci ab liggéey ñu jëmmal loolu rek dem ñeenteel ba kër gii Serigne Touba moo ko sañoon moo ko tuddee Rahma waaye dafi daan dalal ay borom xam-xam yu jëlee loolu seen ba mag ñi daan ko waaye kër naar yi daan waaye li sëñ bi daan dalal moom boo bu ñu kër yi ñu sukkandiku bu dul boobu ngir jëmmal kilifa yi borom xam-xam yi nga xam ne ñu def ko muy jataayu xam-xam ñu fi jàngale xam-xam yëpp mel mu doon lu mel ni ak université ñu ñu fiy traité lu bari bu ñu amutoon benn sukkandiku waaye bu dul boobu yi itam mu jàpp kon kër xam-xam ak yar mooy birteli sunu sele te sunu borom wax ci alquran ni nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fi hayati dunya wax na ñun ñoo seddale nit ñi seen dund ci àdduna mu mel ni cër yi li ci gën a fës dafay xam-xam ak alal ak daraja ak jikko yu rafet waaye nag bu caagee ne loolu képp mooy tey lu ci ne ab cër la alal ab cër la waaye nag bu lépp xam-xam ab cër la waaye bu lépp daraja ab cër la waaye bu lépp makaarimul axlaaq moom ma ni bu ñu jàngatee aaya boobu bii suñu doon wax ni dañoo séddale seen dund ci àdduna danañu gis ni alquran saa bi wax dafay wax ci pëbëstal waaye dañu cay dégg nag nit ñi ñoo koy dégg ci seen kam kam la suñu borom mooy ci ak dégg ma ni cër yi dékkewul ci ak dund rek suñu borom ba muy bind ay bindéefam la séddale cër yi dëgg malaaka dañu génne surtout damaa léegi kon sédd ba mu sédd si biir ñu def mooy dañoo def ñun ay nit nit yi doon koo xam ni ñu wax ni moo gën ci li yàlla dëgg waaye li suñu doon sax ci alxuraan mooy moo gën ci lu bari ci li ma gën wa faddalnaahu alaa kasiirin mimman xalaqnaa tafdiilaa kon bi suñu borom bindee ay mbindeefam bind nañu séddee ñu doon ay. dumame mu belgique ay problème yu bëri ay suuf yu bëri ay milliards suuf waaye suuf si yi dañu teel mu suuf waaye suuf si mu séddale mu doon ay continent mu séddale ci continent bii nag jàkka waaye continent bii mu séddale mu ay réew yu bëri mu séddale réew yi réew yi mu séddale ay réew yu bëri séddale dëkk bi wéralee pas-pas yi def ñeen ñu doon ay yéefar ñeen mu def ay jullit mu séddale mu doon ay jullit yonente yi mu ci ki gën ci mbindeef yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam noonu la séddale tër yi ba ci biir diine yonente bi mu def ko ay ngépp séddale ci am séddale ko ay iliman séddale benn imam noonu la séddalee cër yi ci ñii muy def leen ñuy ay fuqahaa ñii di ahlu tasawuf ñu séddale tasawuf ci biir yére yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye yooyu ginnaaw bi mun na séddee tasawuf yëpp dañoo séddee kilifa muy Cheikh Xadim radiyallahu anhu kon muy cër ci kaw cër ci kaw cër yëpp nii cëri suñu borom la tabaraka wa taala mu mel ni kilifa kon li muy tekki dëgg dëgg dëgg dëgg mën naa xam lool ndax dana tax nit ki mën a jariñ ci kilifa kilifa la muy tekki mooy jëmu joo xam ni loolu yéene sa bopp ci aw yiw yéene na la lu na toll mu yéene la lu kilifa mooy jëmu joo xam ni loo ragal ci aw ay bëgg saa bëggale na la ko noonu mbaa mu bëggale la ko lu ko kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki jiitu ci kilifa jullit am lool yërmande ci jullit yi xër lool ci luy jariñ jullit yi lool ci mucc ci lu leen di lor ci alquran لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم waaye bi yàlla ci tërale it yàlla def xolam ci mbindeef yàlla yépp waxuma sax ci jullit yi xolam ci mbindeef yépp mooy yaa maalikal mulki yaa man jalla an qawalin irham jamian kon moom liy faral ci mbindeef yëpp mooy yàlla yërëm leen mu mel ni loolu kilifa bu mel noonu nii bu nu wax ni sunu doon tànnale rek am na lu war sunu diggante ak moom la war sunu diggante moom mooy cofeel bu mat sëkk war naa am war naa war ma sëkk war naa bàyyi xel ay ndigalam ak i tere di ko jéem a toppee ak di jéem a bàyyi ay tere mu war a am lu koy tere man cofeel yi ci yoon bi rek lu am Sëriñ Tuubaa suñu borom defal na ko ci ak cofeel defal na ko ci xol yi loo xam ni xamuñu ku ko suñu borom defal benn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bëgg ko mbëggeel boo xam ni ba ci luy niru lor sax bu bàyyi ko ci moom. neex na talibe bi benn bés damaa jógee Falcon ñëw di wax ak seen sayo wax ko ngi sant bu baax wax doom yi de bu bëree ay saaga sax wax lu mu noonu nga di wàññi nañu fi ñu toll ñu ma saaga de bokkul ci yoon yi te kenn mënu ko ci génne bokkul ci waaye mënu ko ci génne loolu la ko waxee ndax ne ndax sëriñ bi jëkk jëkk dégg muy saaga moo ko dem dara ko moo ko doon duma jumaal boobu waaye nag Cheikh la ba mu déggee ni loolu day loolu xew daal daal di daal di saaga te taw ngeen bëgg sëñ bi kon am na ci xol yi cofeel boo xam ne luy nuru lor sax bu bàyyi ko moom njëriñ ko jàpp mu nekk li ma ci jotaay boobee ni ma bi mas naa tibb nangu suuf ñu ne suuf sii de bu mu ci dal rek lu daa yàq suuf waaye ba mu sànni ñu ko dañu ko doon jëkkati ñu ko tibb te kooku lépp suñu borom def ci ak tefe mën nañ ni xamuñu ko ci histoire ku ko yàlla def pour yàlla def ci wàllu kon joxe jàmm la ca des mooy war ma war ma ji nga xam ne war nañ ko seet war maan war maan ak njabootam war maan doomi boppam war maan ak sëtam war maan ay mbir man war ma ji kenn te loolu lépp noonu lay def ci saxaaba yi ndax loolu la xabaar ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bu fekkoon ne sama xeet am na ci ku ñu yeggiwal ak njub mu ne Omar la Omar taxawaay bi mu taxawoon dafa mel ni murid yi moom la ñuy roy ci ak taxaw ci wàllu nu mu fonkoo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Sadou Masane wax yonente bi nangam bu ci biir tegee baax da muy def mooy génne jeex jàpp dañoo teg ko waaye bu mu demee ba béytil maal bari alal ci fi daje lool ku de jullit yi laaj leen lu ciy xalaat ba am ku ko andil xalaat ne ko man li barab sànga ba ma ko dajee dina defoon lu mel nii ak jiwaat dañu listé woon nit ñi def ko ay catégorie ñenn ñu ne la cay seen cër ñu Omar ba muy seetale loolu yi benn nañu jiital Quraysh ñu ëpp ci ay ceeb njëkk a seetlu waaye nag Quraysh boobu yi nañu ci jiital Banu Hashim ñi gën a jege Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye Banu Hashim boobu yi nañu ci jiital Banu Abdul Muttalib ñu leen gën a jege Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ la tere dina noonu la tere doon lu muy tëral ñu ne ko tegaat nga sa bopp fii ndax comme mooy xalifa bi mu ne leen 이전에 미래에 열더니 조금만 옛날 조각해야 돼. 지들로는 의사 대가 악시지 Abdullah ibn Madon dëkk ak ceeb Usaama ibn Zayd mi nga xam ne dafa doon doom yi Zayd ibn Harisa yéen nga xam ne ak xel loolu mu jox ko ceeb bu ëpp bi mu jox doomam Abdullah ibn Madon Ibn Omar ne lu tax ngay nga may ëpp laal ci ak Usaama te te moom de moo ne gëm naa ne gëm naa ne gëm bi moom la yonent bi gën a doon jekk bàyyi nit bi gën a te fee bi boobu yow laay noonu soxna bi mu defar leen ñu ëpp ay cër ba ci Xasan ak Xasan ñi doon seet yonent bi ay xibaar ba mu nekk te wóor na ma ne yàlla dina ko ci mën a ci moo tax ma ne lépp lu lu may tàggatoo lu ko wax dëgg yàlla waaye ma ne mu des kon topp ndigalu sëriñ bi ak bàyyi ay tëral sëriñ bi moo ñu ndigal màggal moo joxe ndigal xam ne bis bii lépp lu ma am ci la ma ko sama borom defee ma di ci sant sama borom te loolu ci bëgg njëriñ li ma ko ci sant ma bëgg saa bu ñëwatee li dalee ci ganaar ba ci gilee lu ci waaye am na ko ci defal sant leen ci ko kon loolu ndigal sëñ dajaloo bi fii ci Touba noo ngi koy def ci ndigalu sëñ Fall sëñ Fall moo wax sant baax na foo ko mën a def baax na waaye ñu defe si ko fii fi moom fu ñu ko mën a def rek ñu def ko fii fi moom boo gën kon cant sant boobu mën a digal ndigal la lu jógee ci suñu borom mu jot ci dina moom seen jox ñu si digal kon digal yàlla jëkk mu dina ko digal yàlla ko daje ko li nga xam ne sëriñ Fall moo joxe digal بلغوا دفع فوق دفع ترتجع بها يتبوع دفع يستجع تدع دون ما لدى On m'a répété, je dis, tenez voir les moyens d'aller gestalt. D'aller gestalt. Tant que il y a la petite, c'est le tubato de l'anglais. D'aller, dès que moi, dans le diné, la femme dans le bureau, tapi yang المجتهد kon sant boobu yi nga xam ne moom lañ suñu borom lalu lañu bëgg a alquran ci sunna su yonente bi sant dafa ci alquran ci ay tëggin bari wut yi saa dafay da fay ñëwee ñu tëj ko tëj na jëkk kenn laa te mooy fii sama borom waxee ni alkuruni alkuruni nga ngeen may fàttaliku ñu ko firee ni fàttaliku yàlla mooy di di di góorgóorlu ci li mu lay jëgal di bàyyi li mu lay tere alkuruni dinaa leen fàttaliku ci musal leen ci lii ragal may leen leen jëbal parce que alkuruni washkuru lii wala takfur

beneen bi ci des mu digal yonent Yàlla Muusaa ni ko inni istafaytuka ala naasi bi risaalati wa bi kalaami tànn naa la ci nit def la ak yonent tànn lay ci waxante yow faaxus maa aataytuka wa kun mina shaakiriin loolu nag li muy teg foofu mooy lu mën a jox na nga ko doyoo kon danañ ci dégg ni ñàkk a suul jëf ak tànn waaye doy loo li la yàlla joxe ak cant waxusuma aatuka boobu ko gën a changé beneen bi ci des mu digal ko àll daaw la ni leen jëf leen yéen waa daaw yéen waa kër daaw jëf leen ak cant am na leen jëf leen ak cant yi leen jëf leen ngir sant liggéey ngir sant doomu aadama yi lu ëpp ci lu mu yëngatu ñaari bi rek bëgg a mucc mbaa bëgg ak xel mu ci li ngay ragal ak am li nga bëgg ku yëngatu nga ku yëngatu ne benn si ñaar yooyu yoo tax mu yëngu moo tax su borom ci noonu ñu gën a maanaam bi ñu koy digal mu war koo jaam tam gën ko jaam ko tax mu jaam ko dafa indi ñaari topp yooyu mooy xayma loo ko ak ragal loo ko ngir loolu daal di ko ko bindaale kon ak mucc ci loolu mooy tax yëngatu su borom digle na ak tant di di ci kaw fàttali doomu aadama yi li mu leen defal ci ay xew ni leen da ngeen di fàttali lii la leen defal ndax ngeen mën a sant yii saa yi mu musal leen ci leen loolu loolu ni leen fàttali ku leen musal lii la leen musal ci nangam la nangam ndax ngeen mën a sant te bu cëpp ñaare cant boo bàyyee xel xéewal bu ñu la defal dana war a sant boo bàyyee ak xol bi bu tooy boo duggoon te mooy loolu bu tooy ji loolu la loolu musal da ci fanaan sax ñaar yi bu ci ne dafay sax ci alquran su loolu ñu wallaahu axrajakum min butuuni ummahaatikum laa taalamuuna shay'an xëy li mu la defee mooy bu ngeen di ñëw ci àdduna kenn ci yéen ku ne ci yéen mu ngi ñëw ci àdduna xamul dara ñëpp ñu ngi ñëw ci àdduna xamul dara ñëpp ñu ngi ñëw ci àdduna xamul dara للذنوب يمتئة أمنا وجعلنا لكم السمع ولا بصار ولا خير لعلكم تشكرون mun nag suñu borom moo leen defal ak dégg bu xam-xam mën a jaar jaar defal leen ab gis bu xam-xam mën a jaar jaar defal leen xol bu mën a taati xam-xam ak mën ko xalaat ndax ñu ne sant yëpp daf ko fàttali la waaram ni muy li ngay ñëw amoo dara xamoo dara mënoo dara bu mën a la amal la خرج mu fàttali leen ko ngir bëgg des la am la ko tas waaye noonu la suñu borom di fàttalee nit ki coono yu nekkoon ak ni ñu ko ñàkkalee fayda ak ni ñu ko doyee daloon suñu borom ñëpp ci ko teg ko ca kaw man ko personnalisé mooy ko fàttali ko loolu naka ma si waskuru id antum qalilun mustadafuna fi l ardi taxaafuuna an yataxattafakum naasu ñaan googu yonent yàlla Ibrahima ñaanoon ci Màkka lu xar baax la Màkka dara du fa ñor te looy jënd ci meññet fa la gën a yombe mu mel ni ñaan googu sëriñ bi daf ko delloosiwaat fii ci dëkkam bii ndax jamono bu ne fu dara ñoree rek seen xel la muy jëkk daj mooy Tuubaa gi ngir indi ko jaayee si ko fi kon day mel ne aaya boobu war naa mën a yeesaat ci nun warzuqhum mina samaraati laallahum yashkuroon suñ borom bi mu bindee aadam jox malaayika yi ndigal ci ñu sujjóotal ko iblis gàntu sujjóot boobu yi mu dàq ko ci aljanna ci rëy rëylu googu mu rëy rëylu woon iblis dafa giñ ci tedd nga yàlla ni ko ni ko nii ma beewe man danaa sàkk pexe ba ñoom ñëpp danañ beew ndax ci ci digg yoon wi laay toog di di sàkk pexe ci ñoom ba ñu ëpp ci ñoom duñ la sant kon moom itam pexe ya muy def diggante ak doomu aadama yëpp mooy doomu aadama bañ a sant fa bimaa axwaytani la aqaudanna lahum sirataka almustaqim summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajidu aktharahum shakirin dañu ko ñu ëpp ci ñoom doo doo gis ne ay duñ doon ay santkat waaye nag doonte doon waxkatu dëgg yi de foofu wax na fi dëgg suñu borom dëgg dëggal na waxam jooju ndax ni ko dëggale moy yàlla ci bopum mo waxal bopum ni wa qalilum min ibadiya ashakur ñu néew ci sama jam ñoy ay sant santkat delluwaati ni wala xad makkanakum fil ardi wa jaalna lakum fi ma'ish ma len leen fi ci kaw suuf defal len ci bërepp yu ngeen mëna dunde dal ni waaye nak xalilan ma tashkurun waye néew na lu ngeen di sant kon loolu iblis waxon niko wala tajidu aktharahum shakirin sunu borom saxal na ne ñu ëpp ci nit ñi duñu sant kat te ñaari yonent la sunu borom tudd ci alquran jox leen melaw cant googu mu yonent yàlla ibrahim ak yonent yàlla noox ibrahim la wax ni inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan wa lam yakun min al mushrikina shaakiran li an'amihi noox mu wax ci moom ni innahu kaana abdan shakuran ñaari yonente yi la suñu borom cité ci yonente yi melal leen ci ak cant tekkiwut nag ni yonente yi jërës dañoo doonul ay santkat ñoom ñëpp ay santkat lañu te yonente bi doon seen doon di ci seen kilifa waaye li li muy jàngale rek mooy néewoog santkat yi lay jàngale ba tax yonente yi sax mu tudd ci ñaar képp ni ñoom ñoom ay santkat la mu mel ni sëriñ Touba li mu jubloo jàngal mooy way néew yooyu kuréel bu néew boobu bii di sant mu bëgg ñun ñu bokk ci dafa bëgg ay taalibeem bokk ci kuréel bu néew boobu moo tax mu digal nu lii mënu digal bu loolu leeree muy sant ni mu saxee ci alxuraan ak ni sunu borom fàttalee doomu aadama bi ay xéewal yi mu ko defal ngir bëgg mu sant ak ni sunu borom fàttalee doomu aadama bi musiba mu ko doon bëgg dal mu musal ko ci ngir bëgg mu sant ak iblis ni mu waate ni yàlla sama liggéey bépp mooy liggéey bañ bañ laa sant ak nan ni santkat yi néewee ba suñu borom saxal ko bu loolu leeree lan mooy sant maanaam sant mooy la loolu dafa mat a leeral kon kon tomb ñaar mooy jëmmi sant ci boppam la ñuy leeral lan lay tekki baat bi dikk na ñu naan sant sant sant sant waaye sant mooy la lan la borom xam-xam yi wax ni mooy sant ibnu jarir ci ab tafsiram dafa li jëlee ci ku ñu wax Muhammad ibnu Kaab al-Qurazi radiyallahu mu wax ni sant mooy ragal yàlla ak jëf ju baax as sukru mooy taqwallah wala amalu saalih abu abdillah as-Sullami radiyallahu anhu moom wax ni julli sant la koor sant la lépp lu baax looy def ngir jëmm yàlla sant la Fadayl ibnu Iyaad wax ni sunu borom bam ne daawuda i'malu ala daawuda shukran daawud dafa laaj sunu borom ni ko nan laa lay sante ndax jëmmi cant googi ak xéewal la goo ma defal gannaaw nag léegi boo ma defalee xéewal ma di la ci sant cant googu képp xéewal goo ma defal la nan laa lay sant nee na sunu borom ni ko daawud gannaaw xam nga ni xéewal gi ci man la bàyyi ko képp sant nga ni ko yëg gi rek ak cant lay teg ñu wax ni Daawuda dafa séddale waxtu yépp ak njabootam wenn waxtu ci guddi ak ci bëccëg du ñëw te du kenn ci ñoom ma nga taxaw di julli bu jeexalee keneen jóg bu taxalee keneen jóg ba ba ba ba ñoom ñëpp ñu daj ci waxtu yi waxtu wu ne rek am na kuñ taxaw ci njaboot gi di julli aka naafi la kon ñu déggee ci ni cant ci ñetti éléments yi suñ borom composé doomu aadama fu ci ne am na cant gu ñu fa soxla cant kon dana nekk ci xol mu yéene cant dana nekk ci aw làmmiñ waaye cant dana nekk ci ay cër cër yëpp muy des na ko jëf kon cant des na ko yéene cant des na ko jëf cant des na ko wax muy sukkurul janaan wa sukkurul lisaan wa sukkurul arkaan la ko yi indi kon martaba bi jëkk ci cant mooy nangu ci sa xol xéewal gi la diw sàngam defal xéewal gi la suñu borom defal nangu gi nga koy nangu ci sa xol loolu mooy première état bu cant ba ca des mooy nga fexe ba foo taxawati di ko di waxee cant ci saw làmmiñ waaye bu ñetteel bi nag mooy sa cër yépp nga fa yéene duñ jëfati lu dul ak cant kon cant ci étape yooyu lay dox am na benn borom xam boo wax ni ashukru sarful abdi ma awlaahu min niamin mawlaahu fi ridaahu sant mooy li la sunu borom defal ci ay xéewal nga delloo ko ci lu ko neex yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nekkoon ci njobbaxtanul cant dem ba léppam léppam léppam di ak cant moo tax da daan taxaw dinaa fi la ba tànk yi newi soxna Aïcha laaj ko benn bis ne ko yaa rasulallah lima tafaalu haza wa qad gufira laka ma taqaddama min dambika wa ma taaxar lu tax ngay def lii te yow sax yàlla jéggal na la li jëkkoon ci say bàkkaar ak li mujj lépp yonente bi ni ko afala akunu abdan shakuran ndax ginnaaw bi ma yàlla defalee loolu lépp ba mu jeexee du ma ko sant ñu xamee ci ni kon cant ndeke ba ci taxaw dinaa fi la ci sant yàlla bokk waaw ndax suñu borom defal na la xewalu wér defal la xewalu kàttan wér googu ak kàttan ki nga delloo ko ci lu ko neex afala akunu abdan shakura moo tax Sëriñ Tuubaa tàgg ko moom yonent bi ni wa huwa alladi sumtuhu fikr wa mantiquhu dikr wa xidmatuhu sukurun ala alminani saa bu noppee moom yonent bi day xalaat saa bu waxee la muy wax sikar la waaye saa buy yëngutu yit dafay yëngutu ngir sant dafay yëngutu ngir sant noni mu dan dundé Serigne Touba don ko ci mom dundam bépp ak tiant la shaghalani shukru sukru ani sikaay dafa wax ni sante soxlal na ma ba mënumaa jàmbat léppam mu jox ko yàlla ngiruk tiant ndax nit xol la aw lamine la aw yaram la te serigne bi dafa wax ni xuttu fuadi wa lisani wal badan liman lahu kulliyati bila kon li suñ borom bëgg muy wéetal ko ci sa xol wéetal ko ci saw làmmiñ wéetal ko ci say jëf lépp Sëriñ Tuubaa doxal na ko diggante ak borom bu ñu boolee yooyu ñu wax yépp muy alxuraan ak noonu ko yoonte bi sallallahu alayhi dunde ak boroom xam-xam yi ni ñu leerale ak cant bu ñu dajalee tegtal yooyu yépp danañ ci dégg ni kon sant mbooleem élément yi ñu composé doomu aadama bi lu ci ne am na cant gu guñ ci soxla bët dañoo soxla ci moom sant làmmiñ dañoo soxla ci moom ak cant ab nopp dañoo soxla ci ak cant ab tànk dañoo soxla ci moom ak cant cant gi mooy lan mooy seet la neex sunu borom nga di ko ci def loolu kon mooy wax ji boroom xam-xam yi wax ci baatu a sukuru sant mooy lan mu des kon tënk gi sëriñ bi tënk cant ci joxe aw ñam joxe ndigal ci ni euh, bis bii lépp lu ma am ci la ma ko sama borom defal ma bëgg képp koo xam ne sama mbégte sa mbéga fu mu la fekkati li dale ci ganaar ba ci giléem loo ci man na ma ko ci defal ngir sant le ma ko sama borom kon sant bi mu doonee lu baax yu baax yépp it moom dana cuqet def ay ay teranga jox ko nit ñi mu mu mu cité bobu mom jàpp ko ci ak cant kon lool lan lañ ci mëna jàngate duma wax ni lu mu ci jublu de waaye luñ ci jàngate ñun luñ ci dégg lañ ci dégg mooy li li gën ci jëf lañu digal ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañu ko ban ci jëf yi moo gën mu ni itaamu taam joxe aw ñam wa ifsaau salaam tasaare siiwal ab nuyoo wal qiyaamu bil layli wan naasu niyaam ak di taxaw di naafila bu nit ñi nelaw kon itaamu taam yonent bi dafa cité ni mooy bi gën ci jëf yi waaye it laaj nañ yonent bi ci beneen jataay ni ko ban jëf moo gën ci jëf yi mu ni julli ci waxtoom julli ci ëram moo gën ci jëf yi am beneen jotaay ñu laaj ko ni ko ban jëf moo gën ci jëf yi mu ni nga bañ a boole yàlla ak dara waaye kon dégg dina li muy takki mooy fu ne béréb bu ne lam laaj nga joxe ko fa mooy li gën ci jëf ci jamono boobu bu ñu nekkee ci jamono boo xam ni problème dépasse kenn amu ko kenn amul jafe-jafe waruwaay kenn amul jafe-jafe dëkkuwaay ku ne am nga kër na ko bëggee am nga waruwaay na nga ko bëgge am nga ab dund na ko bëggee bu dee wàllu ruu mbaa wàllu xel gëstu nga aslef ci xam-xam bu dee wàllu jaamu yàlla yor nga dollu xasida booy jàng yor nga jukki jukkib alxuraan yor nga loraat yooyu wérd lu des dafa mel ni yow soxla woo kenn ndax bu dee dund bu àdduna am nga ko bu dee dund ruu am nga ko foofu buñ la fi laajee jan jëf moo gën ci jëf yi lan la diine di tontu foofu li lisaanu xaalu din li muy tontu mooy afdalul amali mooy ifsaau salaam te mooy jaxasoo ak nit ñi ña la ak ña nga tane ngir nga mën leen a jariñ ñu man laa jariñ kon jëf ju doon dafa am béréb buñ ko soxlaa béréb bu maa doon dafa am jëf juñ fi gën a soxla soxla jamono ju mën a doon dafa am jëf juñ fi gën a soxla loolu mooy jëf ji gën ci jëf ci jamono boobu loolu daa mat di xamaale ci mbirum diine ndax diine kenn du ko tënk ci benn point baa ñaari point mbaa ñetti point Xaalid ibnu Walid ku dégg turu diine rek da nga ko dégg te Xaalid daf daan tari qul yaa ayyuhal kaafiruun di ci gat buñ ko waxee mu ni chagalani al jihaadu ani al quran jihaad moo dox sama diggante jàng alquran te fu diine àgg àgg na kon loolu lañ ci déggee mooy diine du benn tomb rek bu ñu soxla du toog rek di jàng alxuraan du toog rek di wérde du toog rek di nangam du toog di nangam waaye jamono bu ne dafa am lu ñu soxla ci yow nit ku ne lu mu mën daf ko war a def te yàlla tax ngërëmul yàlla mën na ko caa fekk loolu lañ dégg ci diine diine dafa yaatu da ngay seet sa man-man nga def ko te yàlla tax ngërëmul yàlla mën na caa fekk waaye kenn du fab ñëpp tënk leen ci benn benn mbir nit ñi buñ demee ba jamono àgg foo xam ni dañuy taaj cere lay def ci ay ginaar jël meew sotti kenn ku ne jël ci ba sa biir fees nga naan ba màndi lu fay sës nelaw yi képp fay sës bu boobaa diine buñ ko laajee jan jëf moo gën ci jëf yi la muy wax mooy alqiyaamu bi leyli wa nasuniya jëmmi diine mooy def jataay bu ne la fa soxla mooy gën moo moo gën ci moo gën ci jamono boobu milieu bu ne lañ fa moo gën jamono ju lañ fa lañ fa gën a soxla mooy la gën loolu kon lu am solo la ñu dégge ko ci site gi Sëriñ Tuubaa cité bernde jox nu ci ndigal ne lu tàmbalee ci gannaaw ba ci ginnaaw lu ci waay man na ma ko ci defal di ma ko santalee sama borom ak ci milieu yam doon dund ma dégge sax ci làmmiñu Sëriñ Abibu ñu doon ko laa jamono boobu mu wax ni sëriñ bi àggoon na ci ne ku amut loo berndee la sax na nga fekk ku ku def ay ay berndeem nga dem lekk ca ba sa biir fees loolu sax ci cant gi la bokk boko amul sax fekkal ku togg ay ñamam nga lekk ca ba sa biir fees mu mel ni jamono booba mag ñi dañ daan dañ daan def bu bis bi ak see bisu màggal ñoom dañuy wax ni kër gu dem la dañuy fekk ay ceeb te booba ceeb daa jafe kenn mënu ko gis daana ñu naan waaw lu xew ñu naan leen lii lii lii tabaski waat la waaye ak dégg moo ci am solo ba tax nit ku ne day seet la mu man xolam nangu ko ay cëram nangu ko mu liggéeyal ci yàlla te dafa xaar ngërëmu yàlla jërul toxoo fenn jërul dem ci leen la ca des kon mooy wuute yi nit ñi wuute nga xam ni loo jës rek am na ku gis safaan ba loo gis am na ku gis safaan loolu moom jërul sax muy metti kenn ndax loolu moom la suñu borom binde doomu aadama science dafa dafa wax ni bopp doomu aadama bu ne am na ñaar fukki million ci ay séddit benn séddit bu ne am na lu mu war a liggéey liggéey bu mu war a liggéey wuute googu nag nga xamante ne eh, sidit yi dañ ko wuute ay liggéey kon fokk ñuy juyee ci ay xalaat fokk ñuy juyee ci ay gis-gis fokk ñuy juyee ci ay yëg-yëg waaye loolu amul solo li am solo mooy jullit na fexe ba bu bu see nañu fexe ba bu seeni xel juyoo yit seeni xol du juyo xel mu juyoo mën naa am waaye nañu fexe ba seeni xol du juyo te jullit dëgg bu fekkee bakkan dugut bu ci bakkan dugul rek seeni xel mën naa juyoo waaye seeni xol du juyoo ana xel mu juyoo lu muy tekki ak xol bu juyoo lu muy tekki xol bu juyoo mooy ginnaaw yow mu yàlla képp nga bëgg diw sànga mais moom la bëgg lu taxawal diina ji képp moo la ñor lu ko taxawal moo ko ñor kon mën ngeen a wuute ci ay gisin mooy dangaa jàpp ni fii lañ mën a jaar pour am ko fii lañ mën a jaar pour pour diina ji taxaw moom mu jàpp ni fee lañ mën jaar pour diina ji taxaw waaye xol yi benn lañ xel yi mooy juyoo loolu tax seeni xel bu juyoo it nañ fexe ba seeni xol du juyoo te it li feeg ñi ngi dëggu li feeg bakkan duggul rek xel yi mën naa juyoo waaye xol yi du juyoo ndax wuute gu ne am na amoon na jamono yonent bi amoon na jamono saxaaba yi te kenn déggul kon ñun li ñu amal solo ci li ci am solo ci ñun mooy yàlla bi muy tànn tànn na nañu ñu doon ay doomu aadama mu tànnal nu continent bi tànnal nu euh, suuf si muy muy muy planète bi mu dëkkal tànnal nu continent tànnal nu euh, am réew tànnal nu ab dëkk tànnal nu kilifa la am solo mooy kilifa googu yi nanu ko xool seet nuñ ca mën a jariñu loolu rek moom am amal njariñ la ca des kon mooy dajaloo gi nu dajaloo ci dëkk bi di ko fi màggale ci ndigalul Serigne Fallou ak luñ ci mën a jàngate ban solo solo solo lañ ci mën a lañ ci mën a jël Serigne Fallou moo ko digle moo wax ni sëriñ bi digle na ñu di ko sant borom waaye lu ñuy def lu ñu defe si ko fii fi moom nag moo gën moom moo joxe ndigal ñu ñëw fii ci Touba di ko fi daje. kon moom am na ci jublu gu leer waaye nit ñiy wuy si nag ci ni suñu borom bind nit mooy ñoom dañuy wuute ci ay gis-gis wuute ci ay yëg-yëg dañuy wuute ci ay yëg-yëg am na ci nit ñoo xam ni lu mën a doon. adduna lañ cay gis lu mu mën a doon ba ci buñ kaabaroon di julli ba ci buñ yoroon kurus di wérde ba ci buñ yoroon doon xasida di jàng ba ci buñ yoree jukki alxuraan di jàng adduna ay projet la ñuy si loolu yàllaa ko def yàlla moo def nit ñoo xam nit yi moo def nit ñoo xam ne nit yi nit yi diine lañu nit yi ruux lañ lu mu mën a doon yàlla lañ cay gis kon magal gi am na ay wàll yu bari ci wàll lu jëm ci àdduna am na ay njariñ yu bari yu jëm ci àdduna waaye noonu la amee ay njariñ ak wàll yu bari yu jëm ci wàllu dundal ruu ak ak diine boo defee ne kenn ku ne nag fa suñu borom bind sa tabiya mu jëm fa fokk foofu nga mën a gis nitu àdduna gi du gis lu dul àdduna day xool màggal gi ba mu jeex tàmbali ba ci mujj àdduna lay gis mbooloo mi nañ fi dajee wàllu économie bi boo gisee nii nii lii dana jariñ nangam buñ xooloon nii buñ doon jël ak jur di ko jaay nii buñ jëloon ay ganaar di ko jaay nii buñ lu ci ne rek lam cay gis mooy programme adduna la cay gis waaye nituk ruu ki it lu mu mën a doon wàllug ruu la ciy gis wàllug ciy gis foofu it lay xoole bu boobaa ne kon duñ ci wax lu dul li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon muy innamal amalu binniyaati jëf ci yéene la takku jëf ci yéene la takku ndax nit ki kaabar di julli yàlla képp tax muy julli ak ki kàbbar di julli ngir sujjóotal xërëmam bi jëmmi jëf yi moom benn xol yi képp moo leen wutal kon yonente bi ne fa man kaanat hijratuhu ila allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila allahi wa rasulihi koo xam bi nga jógee yàllaa ko yonenteem ñoo la ñor ñooñu ña nga la fay xaar te la war ci yow danañ ko def wa man kaanat hijratuhu li dunyan yusibuha aw imraatin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara bu fekkee nag bi ngay jóg dafa am benn projet boo lal nga xam ne moo la tax a jóg projet boobu ngay seet ba xam bu yàlla dogalee mu laqal ci ko am nga sens bu laqal ci kuwul loolu moo ci sëb cër kon ki nga xam ni mu ngi jóg di séentu màggal gi waaye jubluwu ci lu dul ngërëmul sunu borom la ci jublu sàkku ak topp ndigalul Serigne Touba kooku sunu borom dina ko fay ci yéeneem ak ci jëfam. waaye ku ko jàppee it nag muy projet bu ñu war a làqat ci ay nangam nangam am na sax ñoo xam ni projet ba ñu ko jàppee mooy mën naa am amoon nañ jafe-jafe seen diggante jàmbur bu jigéen boo xamante ne mënuñoo wéet ñu xalaat ni kon bu ñu dajee màggal gi nangam nangam waaye ku ko jàppee noonu it nag ñooñu nañ xam ni yastaxfuuna min annaasi wala yastaxfuuna min allah wa huwa maahum is yubayituuna ma laa yarda min alxawl jamono bu ne daal diine manees na koo soppi ba mu doon adduna kese kese aada mbaa adduna mënees na koo soppi ba mu doon diine ci kaw yéene ci kaw yéene waaw mu des nag euh, magal gi ab congrès la congrès congrès diine la boo xamante ni occasion la ci jullit yi ñu jël occasion boobu ñu exploité ko ci lu baree bari ci njëriñu diine ak njëriñu adduna occasion la ci jokk ak bokk suñ borom digle ko mu doon lu jafe it ndax dëkk bi ñu bari ma nañ fee lu mat at sax mbaa ay weer duñ gisante te mën naa am sax xol yi juyeewut waaye it yu bari yi ak xat-xat yi koo gis mun la xat-xat yi moo moo ma jàppoon nangam ak nangam waaye màggal kon occasion la ci jokk ak bokk kon ndimbal la màggal gi sabab la ci bëggante ci diggante jullit yi te suñ borom yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni du ngeen tàbbee àjjana mukk te bëggantewu leen du ngeen tàbbee àjjana te gëmu leen la waaye du ngeen gëm mukk yi te bëggantewu leen daal di wax ne xam ngeen lu ngeen def ngir bëggantee ñu ne ko ah, mu ni di leen mayante di leen joxante ci seen biir lu waaye am na ci dimbale moroomam rek diir bu gàtt ñépp ak cofeel mooy dox seen diggante te loolu gis nañu ko ci màggal gi màggal gi ak soppante ngi ci biir màggal gi dimbalante ngi ci biir màggal gi ziyaarante mi ngi ci biir màggal gi joxante mi ngi ci biir màggal gi jataayoo ngir jëm yàlla mi ngi ci biir te ñeent yooyu lu ci ne dafa sax ci hadisul si yi Muaas ibnu Jabal nettali ko ni suñu borom jële ko ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni yàlla dina wax ni aynal mutahabbuuna fiya wal muta mutajaalisuuna fiya wal mutazaawiruuna fiya wal mutabadiluuna fiya ñi nga xamante ne dañ daan bëggante ngir man di joxante ngir man di siyaarante ngir man di jataayoo ngir man anañu tey jiit naa leen keral ci sama ker gi nga xam ne genn ker amul gudul moom kon loolu ñu jël ko dolli ko ci nag li ci li ci nekkaat ci eh, joxe aw ñam ak la ci nekk li ci nekk ci njàngum alquran ak li ci nekk ci ay sikar liñ fi yëkkati ci ay xasida liñ fiy jàng ci julli ci yonent bi sallallahu ak jataayi xam-xam yi nga xam ne danañ ko ko waajale jëkk muy agsi ak nag li ñu ciy yëgaat ci wàllu développement économique wàllu social wàllu politik lu ci ne njariñ lay doon loo xam ni buñ ko toppee dana dellu si ci jullit yi doon seen njariñ dellu si ci diina ji it doon njariñul diine yi kon euh, bu ñuy tënk wax ji daal dañuy wax ni màggal lépp ak jaamu yàlla ci kaw yéenu ju sell ndax joxe aw ñam la topp ndigalul kilifa la sikar la jàng alxuraan la ziarante nit jëm yàlla la jokk ak bokk la wàllu jàll ci wàllu économie ngi ci wàllu social wàllu politique lépp doon njëriñ li delluwaat ci diine kon ku sellal yéeneem màggal lépp ak jaamu yàlla doon loo xam dañuy génne ab tomb di teg ne la jël suñu ko fa déedéet daje gi képp ngir jëmm yàlla ak jaamu yàlla la ak teggi ci ndigal ak jaamu yàlla la kon bu ñu doon tënk wax ji dañuy wax ni màggal lépp ak jaamu yàlla la ci kaw yenn ju gisal di ñaan yàlla mu defal na ak dégg ak topp ak jariñu di ñaan yàlla ñu teewe ko ay ati ati at di ñaan yàlla lépp lu ñu séntu ci lu ñu ciy séntu ci ay ngërëm mu defal na ci ba defal na ci lu kawe suñ jot jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala